trois yu mel ne am na bii Kébémer. bi ñu tegu ak Kébémer tamit. tegu ma leen comme ni ak bi la cristal rek. Hmm. yaa man njëkk damay ne la ba heure bu ma neex commande li may def. côté déet déet ak dîner. manquéwul dara. am fa laa def commande bi sax ñu def. li ngay naan. loolu naan rek baax na loolu lay naan. ah tamit jus bi baax na. serveuse. fàtte nga film bi de. ma déglu ma ñëw. ñëw da nga yàkkamti. li ma dal maa seetlu mu mel ni jàmm ak salaam. Mhm. dem taxaw si buntu boîte bi jaay gone piqué bi. waaw kay. sama ñaari ko bàyyi xel wax ma lu ma def. loo defat. Hmm. si mi samay toloo naan bu turee ko ni jaar. Hmm. bu la dalaloon rek ma gis. kese mu baax ci yow. donc laa war def de nag. luy dóore këpp man mu am ci dëkk bi ba léegi kon góor bi gën ñu ngàtte du kure ah ñoo diri ci béton bi di ma saaga soxna su ko neexee. saaga sax. waaw bëgg fii laa ko def bu dee dama jaakee amee su dama koy def. bëgg lu baax ci jigéen. ah nga ne man du ma la wax loo xam te lu ma wax dama koy def. gëm naa loolu yàlla su ma toogoon ci côté oto bi noonu am na lu ma fa bàyyi apporté ma ko waaye c'est urgent ok. sama xel bi moo fi nekkoon tellement mais xaaral mu ngi en tout cas daal fii luxe na daal. merci. gis nga ko. V. ça va nuyu la. ça va bien. si loolu. nuyu la. ça va. ça va. gannaaw yow lan lan mooy sa problème ak man. problème. eh Pablo xamuñu si kay dégg nga. ok. est-ce que mën naa xam lan nga may toppee. ñu ma trois fois fu ma bëggee ñëw ci yow sa garde corps yi même chose. Mhm. te yaakaar naa mertu mu lool. ah bon. yaa ngi fàttaliku sa anif. waaw je me rappelle. cadeau bu fa ko indi. Ah, ambiance bi du genre tal moon peut-être nag cadeau yi bëri na mais bàyyi ma ci xel. topp maa ngi dégg sànq nga ne dama temps foo jëm dama hmm. loolu. damay liggéey ak ku la jege nekk ak moom chaque jour ci loo nekk lu bëri dama koy xam. man bu ñu avancé nag di nga ci xam dara. kan moom moo war a jege. man. ex mën naa am sa ndaw su ma woowee ñu gën a ok. sama carte mi noonu boo ma soxlaa rek xaw laa dimbale ndax sonn nga trop. Marème papa bu ñuy téléphone lu sër. waaw bu mu dem eh? ah, lay wax rek de. benn Marème ki ci am ci dëkk bi. Marème sa xarit laay wax. kii yaa deuxième place su xale. man tam lay wax rek waaw kay. waaw sa jàng bi. alors say moyen. ah ñu ci papa. baaxul. waaw c'est sûr. xam nga papa dafa investir ci yow. bu la fayal privé bi dana cher. bonsoir. bonsoir. papa. ça va. ça va bien. Hmm, Sebulan. Iya. Abang mana pun tak pasal kuat bunyi. Tapi bapak ada kau tak? Iya apa ya? Ah, wah, mau bilang tu macam. Ah, wala. Mana ke tinggal situ saya? Secret angkut. Ah, nasi ni sebenarnya balik tinggal. Tak mahu kau. Ah, tinggal. Visa. Apa? Aku mandang ni dah. dégg ko. jeex te réewal naa ko jeex ma nga am bàq boo amee bàq man ak yow ñooy ànd fa. waaw dugguma ci de dugguma ci. waaw kii xam naa li koy tànn lool nu mu koy def rek. yow man waxuma ak yow ba pare laay waxaat. waaw waaw man li ñu def waaye. damay def de. Hmm? damay def waaw. waaw kon baax na. waaw baax na. lu tax man su may génn. man daal dëgg fa ba pare yëngu-yëngu Omuska. Yow kii da ngeen bokk cax gu rëy ba noppi nag yàlla am na ma ma di leen ci aar di ci aar sama bopp di ci aar famille xawoon na mu sàgg tuuti ba nar ko ñàkk mais nag may sant alhamdulilah waaye nag kooku dootu ko dootu ko waxati mukk waaw léegi nag moom dama xiif tey moom ba mu aar fi jox rek. kuy dugg waay. xam nga soo koy. Normal miał. Ale ja mówię. doucement doucement. Ah, doucement ne sais pas. Hey, ah, mhm mhm waaw ok c'est noté ok merci. El Hadj. mais sa sœur bi ba mi ngi tane. waaw mi ngi tane kay ça va alhamdulilah. fàtte woon naa ko sax am dossier bi. et j'ai waxoon na soo ñëwee ma def ko dossier bi. am dossier la.

non wax ma rek wax ma. dayoo sax am na lu ma koy préparé. loolu lu ma. ñaar xam nañ waaye ñett xamuñu. non wax ma rek. loolu après la yow bàyyi sotti. ah kon baax na yow moom yaa moom. damay bañ cat euh, que การdulu kalau kita kita ambil kita juga no kan yang boleh kita ambil ah kuma xaw ma xam parce que depuis sànq ba léegi man lay patienté ah ok noonu la demee noonu la demee mais quand même lépp daal alhamdulilah quoi waaw sant yàlla waaw alhamdulilah sant mais Takku Kunda est-ce que yaa ngi koy dégg maa ngi déggante ak moom sànq. ah ok mais tàggu doon wax sax. mais tàggu loolu ñu ma ko doon wax. ah on va incha allah loolu macha allah. ah ok alhamdulilah. mais quand même nee na ko balaa kii wax dëgg. moo war a dee dama ko waxtaan. parce que yow dangaa sori ci man lool ma fonk lool na ndax tey bu bëree ba tey bëgg na associé ak man. mais man yow laa am vraiment euh, gis naa sa taxawaay ci dëkk bi ndax euh, entreprise bi mën naa ne suñu entreprise la ndax entreprise boo xoolee Kébémer yëpp daanaka benn zone taxawaayu si ñëpp ñu ngi ci gis seen bopp baax baax. mu nekk lu am solo. kon vraiment tey su ma jëlee sama alal bopp di ko ci def dama ci sawar. moom <laughs> voilà ci bàyyi moom. ok incha allah xam naa kon maa ngi ñëw moom dem mais en tout cas daal di proche. maa ngi mais monsieur Diallo. waaw. bi may ñëw si yoon bi daje naa ak ku nuur ak yow lool lool lool. loolu man dem naa sax boo koy bëgg a photo bu ndaw. yow da nga am seex. non non non non non. Ah. mais souvent tamit xam nga nuroo day am. te xam nga yàlla moom daanaka yàlla moom lu mu sàkk rek dafay nekk ñaari souvent. ok xam naa loolu la. xam naa loolu la quoi. ok merci. Ah, ok merci. Merci beaucoup. Ok. Ciao. ay question réponse du moom a indi fii su ma xamoon nag lii moo tax ngeen ma fi indi doo teg sama tànk fii li la fi dugal génnewu dama bëgg nga rek pauvre homme hey dama nekk ci mission ba noppi nag ma am lu me wër du lii moo ma yëkkati sa gars yi am na luñ ma wax ci yow te man buur kenn moo wax rek ma gëm doxewu ma noonu man buur li ma wax noonu nag te ji laa koy testé. bu dee tuuti rek xam nga rek comme nekkoon si bagage yi doon réglé mais alhamdulilah. maa ngi doon lijjanti soppi. waaw waaw waaw Ami comme dama nekkoon si affaire entreprise bi bagage yi laa doon lijjanti ak yooyu noonu mais yàlla jàpp na si. waaw ah, comme si entreprise bi yore ak waaw mais yow temps yii dafa am benn xale bu jigéen bu ñëw si entreprise bi di la laaj. ma laaj ma. Maywa ma laaj la. munoo gàtt te ñuul. moom la. man daal nekk Sénégal daal bari nay doon xaar man kooku naka jekk ma gis ko xam ne doon xaar kooku kër gi sax du fi jóg. toilette ba douze biiram sax mu dugal ko daa wattale. moom daal kon moom moom numéro 10 daal lay pointé moom moom day toppe rek. <laughs> nga jaay ah. ah. damaa wax rek. baax na Ami <clears throat> comme dama nekkoon si voyage bi boobu léegi amoon temps. moo tax mun moon waxtaan ak yow si xale boobu noonu mais li may wax nag man ak yow bëgguma sama nijaay dégg ko kon danga may jege si ma wax la tuuti laay laay sa nijaay laay mais nijaay yow est-ce que doo xaar ah danga may écarté bu baax ah kon baax na ami xale boobu dama koy takk ah, ma waaw laay. est ce que naxoo ma sax. laay dama may foofu vingt cinq mille damay dem vingt quatre. vingt quatre. ana pa ak. ak dem vingt quatre ah ah, ah, ah. man man daal laay soxla woon naa neex na. dëgg fa yàlla yor sa jarbaat doo ko ñaani junni mu may la ñaari junni mu may la ba gis nga trente mille bi waaye nag laaj war nga maa mën a jàngal li ñuy nappi parce que man xam nga ni sa entreprise boobu sax mën naa faa liggéey gisoo xoolal dese naa suuxu gisoo wala. liggéey laa dégg de. ami bàyyi ko waa tonton. Hmm. yow entreprise ba lan nga yaakaar ne moom nga fa liggéey. moom waaw xoolal kii jonj duus mën naa ko fobee rek fobee rek. suba incha allah huit heures. Hmm. am na yeneen doxuma liggéey lu amul seet a baaxul am na lu ma doon wër bu yàgg ba léegi gis naa ko ci kan laa ko gis wax ci jëmm ji toog mu jàmbaar lool bu kon nag bis naka tey lépp lu ma yor dinaa ko jël man buur jébbal ko ko mate na ko ñëpp ngeen topp ci denc dañ ko génnee ndax jaru ko te naka la xool di sedd ñaata at man ak yow ñu ànd mission boobu ma sa san tracé naa ko di jigéen laa gën a fonk te dama koo tëral rendi ko ndax yow kon lii ko jox nii maa ko gën a mérité dafa am lu tey nag dama leen bëgg raconter benn histoire bu fi amoon jëkkër ak jabar woon taxaw fii ñaan yàlla lu ñuy def ba am doom ci noonu ci leen ay picc feeñoo di wax naan ay ñun fu ñuy gis suñu yaay ba may ñu ñu lekk picc yi niwaat leen yéen yéen de bëgg ñu wane suñu yaay dañ leen leen jox doom ndax yéen seen teraanga ci ñun ñii la nekk waaye nag par A ou B di ngeen ñu wan suñu yaay fan la nekk. laa soxla man juumo. yow laa soxla. Hmm. ah déet déet yow kay yow kay téel lan la. man damaa jugee fu sori. Hmm. te yaakaar naa ne balaa maa tourné ba ma demaat foofu. Hmm. ak guddi gii. dara wóoru si. waa bëggoon nag fu ma mën a dallu rek bët bët foo dallu moom daal moom dallu moom foo dallu moom su ma amee ab benn néeg sax néeg baax na. yow yaay doome xaraam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. néeg aw ma ko yow nga am néeg ma ne xoolal sëñ may ma. sëñ bi jàpp si. gisoo ne damaa doo bàyyi sa mën. dama la gaañaa. su dee mën naa am fii sax fu ma lal ci baax. daa tamit daa tamit damay tëdd. sëñ bi waaye léegi mën naa lal fii. pour see laa wax yaa xam. nga xoolal damaa tarax laay ba pare nag nga dimbali ci buntu fëgg bi. jërëjëf. samay àndandoo yëpp ñu ngi extérieur te man maa leen doon jëndal ndékki lu ñu waay mën soxla man maa leen ko daan jox te tey ku si yónnee photo yaakaar naa ni fi ñu nekk ñu nekk fu neex yaakaar naa man nag ma jaar si gaal yi dem.

bàyyi rek ma tante ma jaar si gaal la chance n'est pas un paille qu'on met et La chance n'arrive pas à tout moment. Bonne chance. Mmh. merci Khadija. lu hmm. gën a góorgóorlu. maa ngi. Hmm. yow yow waaye maa ngi. ça va yéen nag. ça va duggal si kër gi bépp xaalis ne nga génne ko. xaalis da ko pot bi. jëfal ko yow eh yéen da woon ngay dëgg i i i i kon benn i waaw. ça va ça va. ngi si jàmm. maa ngi mon frère lan moo la téye boobu ba léegi ak foo nekkoon mon frère ba nga demee ba tey man ak sama yaay amuñu jàmm amuñu salaam mon frère bañ déggee batu bi suuf ba tey sama feebaru yaay bi dafa jaaree gën a yokk. Khadija souvent on si on ne sait pas là on retourne à l'endroit d'où l'on vient. dëgg man maa demoon waaye ñibbisi naa. mon frère alhamdulilah ba yàlla delloosee sa xel ba nga dellu si waat suñuy loxo parce que tey jii mënoon na demee neneen mënoon nañ fee jaax bañ laa gisati walla nga dee kon dina demee neneen. waaw ana sama yaay. sama yaay mu ngi ci xajal ci biir ma may la ndox nga naan. alfa sama doom di la xeer ci lii nga dem bàyyi ma alfa maa ngi feebar xaw ma ci loo nekk xëy xëy rek gisatuma ay alfa lu la jaral lii waaye ay ma nga baal ma ak rek xam naa ni xelum xale moo ma jàppoon te sa feebar ji moo taxoon ma ne naa dem ma wuti nga baal ma àq. Alpha xam nga ni sa papa dafa xëy xëy dem xaw ma fu mu dem xaw ma ci lu mu nekk yow tamit nga xëy dem damay jaaxle te wéruma boole ci Alpha xam nga ni lii metti na. yaay bëgg naa xam sama papa ci yan condition la demee. metti rek sa papa daal xëy na tàggoo fi liggéeyi. te mu demee liggéey heure wàcc jot na gisuma ko ma woote ca service ba ñu ni ma wàcc na laajte naa ko fu ne dem naa sax ba ci média yi sax laajte naa ko fa waaye ba léegi xawma ci lu mu nekk Alpha nga gën maa yokk ñaan rek comme que yàlla indaa indi wax na ma si jàmm naa la gën a taxaw amuñu kudul yow yow yaa sukk nga jur ñu dama lay gën a taxaw rek dolli ma ñaan yàlla. li ma bëgg rek mooy nga gën a fas jom xam ne xam ne toog ci réew mi tekki am na tukki tekki am na waaye toog ci réew mi tekki am na gën a la fas jom nga góorgóorlu te xam ne fii ci réew mi mën nga fee toog tekki jege say mbokk jege say waajur lu ñu nekk nga xam.

damaa bëgg a xam man yéen waa entreprise bi yéen lan mooy seen problème MFP kenn liggéeyatul léegi ko ci dugg si bureau wala nga daje ak moom si kóor yi mi ngi def lu ko neex ndax lan ami sama rakk la moo fi nekk tax na kenn ci yéen waratul liggéey normal pourquoi xanaa da ngeen fàtte ne ñun dañoo am ay concurrent beneen bi si topp dañoo kon kenn ku si nekk war ngaa jur tàkk jékkaat seen toogaay suñu liggéey ba DG doguma la mais nga wax ni dëgg la quoi ñun ñëpp ñoo war a jàppale ndax entreprise bu avancé pour ñun la bu demee am fay tamit kenn ñaanu ko. mais DG est ce que fi doon nekk parce que da ngeen di gis bureau yi fekk ñii di chute ñii di wàcc. je dois am xam naa ne lan maa tax ne mais sama téléphone su ma ko di def n'importe quoi suñu ay partenaires laay waxal li may wax nii DG xam na si am kenn ngoone ku ñu mën a tudd ay xibaar ko naa dama ñëw pour ñu rek situation bi am ko ba mujj tey ñu ngi lay ñëw ngay ñëw ci dégg nga li ma la wax baax ok. ok DG je m'excuse par rapport ak parole bi ma jël mais damaa xam ne entreprise suñu entreprise la ñu avant may dugg ci solution yooyu ngay wax damay waxtaan ak sama collègue parce que dama yaakaar ne woon ñun ñëpp ay responsable lañ te ku ci nekk bi ngay ñëw fii da nga bàyyi sa njaboot lan moo ñu fi indi li ngeen yaakaar ne li ñuy gagné déjà kese moo ci gagné li mu ciy gagné non c'est pour comme ni ko Gambien di waxee time is money le temps passe vite et nous n'avons pas assez temps. par ak solution yi man loolu dayoo seen liggéey parce que j'ai eu e le diplôme en développement. am na sax benn projet boo xam ne bindoon naa ko ba pare par rapport ak maraîchage la te ñun maraîchage boobu ci loolu la ñuy liggéeyal ci bàyyi def naa diagnostic bi def yëpp donc comme ni ko ko sama collègue bi waxee nee na moom pare na. ok ci bopp. donc ñu pare nañu pour yow. su ma amoon ñeneen ñu mel ni yow xam naa ne day am lu nga wax noonu xalaat boobu léegi mais comme pare ngeen rek dinañ taxaw pour liggéey si. mais Seck nëkk nga mën a jëlee li gën a seer si yow dem jox ko benn inconnu. loo xam si nii tant d'années mi ngi ma la koy laaj mënoo ma koo jox tey benn élément ñëw fi nga am si moom xaw ma qu'est-ce qui se passe nga jëkk jox ko lépp je suis pas d'accord non non. mais avant mooy def loolu xalaat naa si bu baax a baax te encore démb si guddi waxtaan nañ si lu bëree bëree bëri kon côté boobu tënkee lu ma a jox rek loolu vérifié ok. waaw mooy loolu. sa démarcation bi ñu ñëw sax wax la ko. imposé. yow. dama bëgg man ak yow ñu waxtaan tey du ma ko laaj kenn nag. yow mii laa koy laaj waa imposé lii ngeen ma bëgg doxloo nii lan la te bëgg na maa xam ban mission ngeen may doxloo. très bonne question yaa ngi soog laaj lu ma neex gis mission boobu ñu lay doxloo ñun ñii la kon doxloo mais nekkoon suñu mission dañoo dem ba si biir mënuñu si daal ñu ma bàyyi te naa la xamal leen. bu dansé ngoogu waa ji garaawa ngoogu koo xam si nii li nekk si moom nekku si ñun ñii nga ni kooku lan moo nekk ci moom un pouvoir pouvoir un pouvoir magique moo nekk si kooku te yow sax moom dara imposé gis kooku man ak moom bu ñu dajee dama koy def tuum dama koy faxas dama koy taal jëppët impôt dama leen nekk ci li nekk n'est-ce pas am si côté boobu bonjour. ci loo nekk. namu naa la yow da nga ma bàyyi. bàyyi moo loolu nekkoon ci préparation fin d'année bi. xam nga dëggantaan dëggantaan mais temps yow da nga war a non non kii mooy sama papa bi. oh waaw. Fred. naan la nice. ok borom VIP shop. ok fi ma VIP shop. fi ma VIP shop moom la abi li ma defaral. ah kii moom ah, nga wax. même li nga teg nii moom la. bàyyi li nga wax. li ma sas nii moom ko jaay. mais jantal grand la. waaw gis nga <laughs> yaa fi jaar ma defal la ci moom ay commandes yu baax. Ah xam nga fin de nag yaa ma solo parce que fi ma gis xam naa nga sañ bu baax. boo ko waxee dinaa ko jóg. déggal déggal allah. merci fii li ma gis nii moom dal na xel. en plus xam naa ku a sañ lu baax. gis nga lii kaw ba suuf. dégg nga la ko jëndee. dégg bu fekkee fii la ko jëndee moom ku fi ñëw grand ku dina sañse lu baax. am solo merci merci frère waaw en plus moom sama euh, xarit la day ñëw. wax dëgg yàlla neex na jaay waaw te neex na sañseel en même temps en même temps yow tamit neex nga sañseel mais fii moom day am bagage yu baax chaque semaine bagage yi day wàcc waaw bagage turki bagage si nañuy mélanger rek fu ne la ñuy jëlee bagage quoi mm-hmm. boo ñëwee da ngay solu quoi waaw na bagage merci merci waaw sa numéro téléphone. merci Féé. après damay bàyyi sa numéro téléphone pour que bu ko defee yaa ma gën a xam. waaw nañ jël numéro ok. da ngay def 78. 78. 156. 156. 38. 38 38. Omar VIP Choc ah. Omar VIP Choc ok Omar xam naa dina la rappeler après. merci frère kontaan naa. ok xewal kontaan naa kontaan naa frère. xam naa dinañ déggante de merci beaucoup. waaw ah, boo fa déggee nag incha allah. waaye nag góorgóorlu liggéey moom benn yóbbu waaye su weer wi deewee soo fay ko rek am naa taay dem yow kontaan lool. ah góorgóorlu bu baax rek ñu de say bàyyi ci la ñuy xëy si la ñuy gont góorgóorlu bu baax rek dégg nga. noonu laa leen gën a dugg wala ngeen naan ma booy bi fii du place am waaye loolu lépp def ko ngeen maa yaatal ngeen jëlee ma ngeen def ko comme seen bopp ak wàllu seen fay daal. ah sama doom ñu moo may suñu wareef bi Sénégal ñu ngi koy woowee le pays de la terre. baa ñaar dañ koy bokk douze ñaar dañ koy bokk café ñaar dañ koy bokk margo ñaar dañ koy bokk kon bërëbu liggéeyukaay ñaar war nañ ko mën a bokk ah kon bàyyi naa la soyez la bienvenue faites ici comme vous dans dans dans seen kër na dégg nga léegi nag am na sa benn baay bu ñu naan bajaan ah sama xarit sama doomu ndey la ndomba gii ma takk sax moomu ko wutal ah. pour bañ ñu dàq ma ci entreprise bi ah, waaye heure bu dikkee dinaa la yëkkati teg la ci sama waay la sama xarit góorgóorlu bu baax nag dégg nga ah, góor xoolal ma xoolal ma doome xaam ji rek. waaw eh, kaay. kaay. kii mooy gan gi ma la doon wax. alpha la tudd. sabaay bajaana ngi. ah kii la. alpha ngi nii. comprendre ko nag man may wax yëggalee bu ma jënd xulleen te sa bëri rëy. waaw mooma kay yow lan moo ko dee mooma yow tamit xanaa doomu jàmbur ji ni nga koy niite nii daa métti. jii di yow di maa la doon fàttali sama kii ba yëgaloon naa la ko sama agression ba. agression doon nëbb sa jarbaat. waaw ah ne woon naa la dina la indil conséquence bi. kii ma tee woon a dee bis boobu. kii nan la la mën a traité kii du xutbu du xawsu du wàlliw du yonent du malaaka du dara nga naan moo la traité wax ma dana waay. yow nag. su ëppal bi li ñuy wax ci yow ba tey ñu ngi ci yow. gis nga kii yàlla yàlla am na mu def ci moom loo xay si nii. keroog moom moom la ma soobee. waaye même na sama jàmm kii mel ni Cuuju eh. gis nga gis nga waa ji waajooju gis ko posé tee moom oh. bi àdduna am solo. yéen kii yow ma tee dee bu ma taxaw fi di wax ak yàlla moom. daa def ci moom gis nga li ñu jàngal nii. Hmm. kën fu la. kën fu kenn la ko pour nga ñëw ngay tooñ. wala ngay def loo xam ne kenn sant hmm. waaye dina kaa jàngal soo gisee ku ñuy néewal doole nga mën kaa jàppale. keroog koy jàppale lii mooy àdduna hmm. te lii mooy njëriñam tamit. waaye nag su nga sax bëggoon naa sax ñu waxtaan parce que man sa waa ji xam nga dañuy guddee wàcc te sa waay gis nga appartement bi ñu tijjee ko. Ah. non du ci man nag deux mois laa naan. waaw léegi xam nga moom sax tey jii bu ñu dajewoon ci mbedd man sax dinaa mën a dóor ah. mais moom mi tey jii su ma dóoroon moom mooy gaañ. léegi damaa bëggoon muudu fi boobu wala tool muudu fi kër fu la ah, waaw waaw waaw voilà kër fu boobu bi yaa ba. yaa ngi si jàmm. naka yaram ji. baa yaa ngi feex bu baax. alhamdulilah. baa yaa ngi si jàmm. waaw wàcc na. waaw sant yàlla bu baax kay ah yaay ba xam naa dafa guddi nag maa bëgg dem saa nii. waaw bàyyi rek ma dem ma ñëw. yaay ba nga téye si lii rek xam naa ne xeeb naa ko lool ah, nga gën maa yokk ñaan rek. amiin amiin yaay ba amiin. Ah, léegi maa ngi dem saa nii. su ñëw ñu gën a toog. ma la waxoon. papa yow da bëgg ci kër gi kenn du fi seet nga tëj ma ni prisonnière. ah bon di nga man ok. papa xanaa boo may tere ba doom Pape Mbaye Fall taxaw kay nga mën a wàcc tuuti. ça papa. baa mi jàmm. am si yàlla. est-ce que dama ne ma ko nuyoo. ok man ko accompagner seen teg quoi loolu. seen teg quoi loolu dinaa ko gérer ma si xel daal ok ñu xoolal maa ngi dugg si kóor bi nii loolu ma fi kenn. en parlant de ça dañu am ay jafe-jafe. parce que li génn moo ëpp li dugg te loolu nag doxalul entreprise. ok Ami. tënket loolu man dinaa ko gis dinaa ko gérer léegi loolu dara xanaa moo tax gars yi ba mu tey kenn ñëwul. mën na nekk. sax yow enveloppe bi ma joxoon moom laa bëgg a récupérer woo sa bor mu indi produit pour ñu mën a déclencher waat seen jox. sama ginnaaw te yëguma ko. yëngu fan la yooyu sa caabi wala. laay waxuma waxu caabi de fekkee da ngay kaf nag nga wax ma. Ami lan moo xew lan la. xaalis ban xaalis. xaalis bi ma joxoon. Ami seetal xaalis bi enveloppe bi damay dem. du moom xaalis bi ma joxoon. naa ba sonn lay xaalis bi dem na. ana kay seet xaalis bi lu muy def. lay soo mënee nga ñëw vérifier ma. yow yaa ngi maa bëgg a yàq wala dangaa dof wala lan moo xew. mais xool naa ko gisuma ko. yow ban xaalis moo dem. xaalis bi ma joxoon dem na. ami kay ba yow lan la yow wér nga. ok xam nga laa bëgg nga tëj entreprise bu kenn dugg bu kenn génn woo nga ñëpp ñëpp réunion la soxla léegi léegi léegi léegi. yéen damaa bëgg a xam entreprise bi yéen da nekk pour liggéey wala da ngeen nekk pour jël alalu jàmbur. xam nga lan laa bëgg kenn ku si nekk li nga fi am lu mën a doon nga ànd ak moom ñu fekk léegi léegi léegi ak lu gën a gaaw jug leen. Amin. waaye nag. xam nga dañuy naan xëy ak sa état bi yéegu ko. kon daal yéen boo déggee seen explication dem gàddi yow Sadio Ba. kii teg ma ci man man de yàgg naa ko. déedéet mu pos bu nekk ci. xool xool ko si xool xool. sa kàppu waxtaan na ma moom waaye nag ñu ñaan du doy lu ngeen ma mën a jàppalee dina ma gënal alal ju bari la sama doom nag moom ma ko gënal te bu ngeen nekk moom na cee fekk ku ma nekkal ci naaj bi ma nekkal la ci kër gi. am naa jël confiance. ok boss. xaaral ñu léegi sa fils. bien entendu. tax ma woo leen je viens de quitter avec le boss pour problème mu xaalis dama koy oof leen nag laa bëgg la fille la soxla te fu roq nekk lu mu metti metti bëgg ngeen dugg ci terrain bi fu ngeen mënti dugg ngeen dugg fu ngeen amee numéro fii. dégg naa li nga wax. incha allah moom loolu bu la dara metti fépp foo xam ne sii millier la dañ fa dugg dañ fa teg suñu tànk dinaa def le ba récupérer fils bi indi ko côté ko bàyyi ko sama loxo dinaa ko gérer ok ah. léegi bu am benn souci. gën dugg ruq ju ne bu ne pour génne doom di bàyyi ko suñu loxo. Ah. Eh bien, j'ai confiance en vous. Hein? Ok, c'est.